Monsieur Kane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Elisabeth. voilà may fàttali suñu auditeur ni Mamadou Ibra kan la ñuy dalal tey moom moo jiite CDEPS muy conseil des éditeurs et diffuseurs de la presse euh, tey jii CDEPS ñu buggoon xam seen position gannaaw nag euh, mille quatre cent milliards yi nga xam ne moom la ñu alloué euh, presse sénégalaise dégg nañ ci coow ndax répartition bi am na ñu koy ŋaññi ñu buggoon xam taxawaayu CDEPS ci répartition bi. le patronat de la presse maanaam euh, organisation yi nga xam ne ñoo ëmb SEDEF dañu rencontré woon le président de la république le vendredi vingt sept mars si rencontre boobu président de la république wax kontante bu mu am ci presse Sénégal parce que rôle bu muy joué dans la guerre contre le coronavirus vraiment euh, rôle bu am solo la euh, mu ne aide à la presse bi nga xam ne comme ni nga ko waxee ak bu nekk lañ ko daan joxe aide boobu dina fexe ñu doubler montant bi dégg nga euh, cest dire mu jógee sept cent millions ñëw un un milliard quatre cent millions. Mhm. te ba pare mu ne dinañ fexe pour ñu mun ko fay nu mu gën a gaawee. Euh, ñun ñu kontaan trop ci décision du président de la république. mais ñu ñaan ko pour que problème yu daan am yeneen at yi pour mu bañ a am ren ci aide à la presse ñu ne euh, ñu ñaan ko pour que ministère de la culture et de la communication mun a euh, les acteurs des médias pour ñu définir yan critères dégg nga la ñuy répartir aide boobu waaw ñan ñoo war a mën a nekk bénéficiaire aide boobu et dans quelle proportion ñaareel bi ñu ñaan ko ne gestion de fonds publics dafa laaj transparence euh, pour la bonne gouvernance dégg nga ñu ñaan ko ne ministre de la culture et la communication bu defee répartition aide à la presse bi dégg mu génnee benn arrêté ci arrêté boobu dinañ wax ñan lañu jox état presse bi ak ñaata lañ leen jox président de la république nangul ñu condition yooyu euh, bu ñu génnee ñu def une déclaration devant l'opinion publique dégg nga ñu def benn communiqué euh, ñu di euh, informer le ministre de la culture et de la communication si lan la ñu d'accord ak le président de la république ñu étonnement nag euh, mooy euh, ministre de la culture et de la communication mu ngi mel ni dafay nager en contre courant euh, bi lu ñu d'accord ak moom mu ngi mel ni moom bu nga xam ne moom mooy ministre du gouvernement dégg nga d'accord ak lu ñu am comme acquis avec le président de la république mhm. parce que moom dafa def ni mu ko neexee wootewul les acteurs des médias pour ñu définir les critères de définition euh, de répartition de l'aide à la presse euh, moom dafay jël ay euh, ay médias nga xam ne elles ne sont ils ne sont même pas en entreprise de presse mm-hmm. mu jël xaalis public xaalisu jox ko ñooñu alors que yàlloo ko dégg nga ñenn ñi ñi nga xam ne euh, sur la base de critères politiques mm-hmm. dégg nga mu jox leen xaalisu réew mi te euh, ba pare ñenn ñi sax nee nañu euh, ministre de la culture et de la communication mm-hmm. at bu nekk aide à la presse moo koy servir de fonds politique waaw cest dire que suñu xaalis mm-hmm. dégg nga bu nga xam ne entreprise de presse lañ ko war a jox dégg nga moom am na euh, wàll bu nga xam ne daf ko koy da koy fële boppam mm-hmm. dégg nga yooyu yëpp donc moo tax yenn entreprise yi Euh, depuis démb di aide à la presse bi commencé euh, xaw ma daanu nit ñi di dem récupérer seen chèque yi am na ay entreprise yu bëri ñoo xam ne nangu ñu sax jël seen chèque waaw donc loolu vraiment ñu koy ñaawlu euh, parce que Sénégal bu bëggee avancer ci démocratie mhm. xaalis bi nga xam yëpp moom dégg parce que état du Sénégal mhm. Sénégal yi yëpp la fi nekkal euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy fay lempo dégg mhm. ñoom ñoo indi xaalisu état du Sénégal donc xaalis bu mel noonu euh, boo koy euh, boo koy gérer mhm. da ko war a gérer ci ay fànn yu leer nañ dégg nga xaalis bu nga xam ne da nga koy may sa xarit mhm. dégg du xaalis bi nga xam ne nga koy may sa mbokk mhm. dégg nga xaalisu réew mi dafa am ay critères yi nga xam ne moom lañ koy joxee te euh, bu dee sikkin sax bu xaalisu état du Sénégal demee fenn mhm. da nga war justifier ne xaalis bi nii laa ko defee nii laa ko séddal d'accord donc vraiment Euh, ñu ngi ñaawlu bu baax euh, lu ministre de la culture de la communication def mhm. euh, ñu am nag yaakaar ne mun na am contrôle de gestion de l'appareil d'État mhm. mhm. des fonds publics dinañ jóg am na inspection générale d'État IGE dégg am na conseil d'État am na OFNAC dégg euh, ak yeneen ak yeneen am même euh, euh, ñun ñii sax mën nañu benn action contre mm-hmm. le ministère de la culture et la communication. mbaa am na tey benn législation bi nga xam ne moo contraindre ministre bi mu wuy si leen ci li nga xam ne moom ngeen koy woo muy transparence ndax am na benn loi bi nga xam ne moo régir li ni mel. bon am na de manière générale mënuma la ko suuf mi mhm. dégg nga euh, am na ay loi effectivement yi nga xam ne euh, dafa am obligation pour tout euh, toute personne qui gère les fonds publics dégg nga moo am ay conditions spéciales euh, yi nga xam ne euh, une procédure sax très sévère très stricte mhm. dégg pour euh, la gestion de fonds publics ci wàll bi nga xam ne moo ñu intéressé muy aide à la presse mhm. am na loi bi nga xam ne moo fi nekkoon mhm. mais loi boobu léegi dañ ko abrogé cest dire que loi boobu léegi n'a pas Euh, de loi quoi nekkatul texte bi. Mhm. loi bi loi bi nga xam ne moom moo régéroon de la presse mooy la loi 96 04. Mhm. léegi bu ñu jotee euh, il y a trois ans en juin Euh, le nouveau code de la presse dégg nga dañ ci peg yi euh, aide à la presse parce que beneen décret moo waroon euh, régler aide à la presse si organe bi nga xam ne ñu ngi koy wooyee fonds d'appui de développement de la presse donc bi nga xam ne espèce banque lay nekk pour mm-hmm. les entreprises de presse mais boo ku may waxee ak yow nii trois ans léegi jib na mais décret d'application boobu jëlaguñ ko donc loolu moo indi un vide juridique mm-hmm. mais ci réew même bu fekkee ne dafa am vide juridique dégg nga euh, am na lu ñuy lu nga xam ne moom la ñuy wooyee l' esprit de la loi dégg euh, esprit de la loi boobu mënoon nañu sukkandiku euh, ci esprit de la loi quatre vingt seize zéro quatre mhm. pour mun a def répartition bi nga xam ne dina conforme à la loi et à l' de la transparence de la bonne gestion wax ci fond plan d'appui euh, de développement de la presse lan moo ko wutaleeg mm-hmm. aide à la presse bi nga xam ne moom la ñu a gis waaw euh, bu njëkk ba mm-hmm. donc euh, depuis mille neuf cent quatre-vingt-seize benn forme rek d'aide la ñu amoon de la part de l'État du Sénégal mm-hmm. pour les entreprises de presse jamono boobu sax kenn daawuloon wax entreprise de presse organe de presse lañ daan wax donc muy li ñu wooyee tey ba tey ji ñu koy wooyee aide à la presse bi nga xam ne c'est une aide annuelle léegi nag fonds d'appui et de développement de la presse euh, moom euh, dafa gën a yaatu dafa ëmb lépp lu nga xam ne muy ndimbal benn secteur d'activité bu nga xam ne dafa fondamental mm. pour le développement économique social d'un pays. xam nga euh, maa ngi ko doon wax ci nasaraan. Mhm. Euh, rôle lu presse ci développement économique et social. ñun na benn fànn rek lañ ci xamoon. mooy rôle bu presse bi di jouer dans la transparence des élections dégg nga ba mu permettre fii Sénégal ñu am euh, ñaari alternance politique en deux mille mais bu ñuy faral di wax rôle lu presse rôle boobu rek ñu daan jiital dégg son rôle dans la stabilité politique. économique et sociale des Sénégalais. mais rôle lu presse euh, raw na loolu lépp li nga xam ne mooy développement économique et social lu réew euh, presse daf am wàll bu rëy euh, jamono yi ñu nekk nii dégg nga am na rôle aussi dans la vulgarisation de la politique de santé publique dégg xam naa ne am na yeneen jamono dinañ gën a si rôle bu mu war a dans le mhm. développement agricole mhm. dégg nga rôle mu war a si yeneen ak yeneen dans la vulgarisation technique et scientifique et cetera mm-hmm. Mm-hmm. donc léegi euh, fonds d'appui et de développement de la presse moom dina mu a ne euh, man damay financer euh, ay recherche sur la presse damay financer ay activité de la presse yi nga xam ne du activité activités yu rentable mm-hmm. li nga xam ne banque commerciale yi euh, mun na am euh, duñ ko financer léegi mhm. donc euh, yooyu muy ay fànn yu bees yi nga xam ne assistance bi nga xam ne état bi daf apporter aux entreprises de presse mais dans le même temps aussi entreprise de presse ñoom ci seen bopp mhm. dinañu mun a contracter crédit ci fonds d'appui de développement de la presse mhm. ci ay conditions yi nga xam ne ñoo gën a oyof condition yi nga xam ne moom la ñuy joxe crédit fii Sénégal crédit fii euh, bu dee banque commerciale yi taux bi dina mën a dem ba quatorze pour cent mm-hmm. dégg nga euh, loolaa xam ne crédit Sénégal dafa cher te sax boo demee dans les systèmes financiers euh, xaw ma décentralisé mm-hmm. mooy ay genre ay crédit mutuel ak xaw ma yeneen structure décentralisé mm-hmm. foofu crédit bi encore moo gën a cher dégg nga te activité presse dafa important il faut ñu créer ko ay conditions économiques dégg nga pour ñu mun a jouer son rôle donc loolu mooy fonds d'appui et de développement de la presse léegi nag mhm. euh, ñu ngi xaar ba léegi décret d'application parce que loi boo ko jëlee te amul décret d'application mhm. euh, du am du am benn njëriñ par exemple euh, loi bi nga xam ne moo régir la publicité au Sénégal elle date de donc ba tey jii dégg nga amul décret d'application loolu moo indi problème yu nekk ci mbirum publicité mhm. muy mu nekk mu nekk lorange euh, pour euh, les entreprises de parce que fu mu nekk nii euh, ay problème yu bëri yu ñuy jànkonteel mm-hmm. parce amuñu loi sur la publicité boo am décret d'application rapidement monsieur en quelques secondes tey jii nan nga jàngatee liggéeyu presse bi euh, ci jamonoy coronavirus bi waaw dañuy rafetlu euh, rôle bu presse bi joué euh, ci guerre bi nga xam ne moom la ñuy mener actuellement contre le coronavirus Sénégal yi bu ñu xamee dara ci coronavirus ngir presse moo tax suñu autorité euh, publique yi euh, ay mesures yi nga xam ne moom la ñu jël pour ñu xeex coronavirus bi presse bi moo koy jottali citoyen Sénégal loolu nag vraiment dafa fondamental si rôle presse euh, ñu ngi rafetlu loolu loolu sax moo tax président de la république bu mu recevoir acteurs des médias yi mhm. dégg nga mu ne ah yéen kat ay jàmbaar ngeen maa ngi rafetlu dégg nga rôle bi ngeen di joué ren seen aide à la presse dinaa ko dinaa ko doubler dégg te ñu fay leen ko si gën a gaawee donc loolu moo indi kontante euh, role bu ñuy joué dégg nga qui est un rôle positif et qu'on continue de jouer dégg nga euh, loolu moom mooy euh, condition yi nga xam ne presse mu ngi def liggéeyam comme ni mu waree mm-hmm. mais presse nag malheureusement ay attaques yi ay décennies sax mu ngi traversé crise économique crise économique bi coronavirus bi yokk ko parce que li nga xam ne moom mooy dundal entreprise de presse bi mooy publicité euh, publicité commerciale mais ku mu nekk nii kenn talul dara lu dul coronavirus donc entreprise yi nga xam ne ñoo doon jaay comme ay diw diw yaram wala ay perruque euh, wala ay oto wala leneen mhm. kenn talatul dara dégg nga lu dul coronavirus donc loolu dafa tax euh, recettes publicitaires yi daan am mhm. dégg nga kenn amatu ko te activité bu nga xam ne doo si am résultat dégg bu yàggee tuuti Euh, activité boobu mun na disparaître euh, loolu moo tax dégg nga ñu ne euh, dafa am état du Sénégal dafa mettre en place benn fonds de solidarité bu mille milliards mhm. benn budget de deux cent milliards pour allègements fiscaux yi pour ay entreprises yi nga xam ne dégg nga des entreprises névralgique pour l' économie du Sénégal léegi président de la République daal boole le secteur de la presse dégg nga si entreprise yooyu nga xam ne elles sont névralgiques euh, te moo tax ñun tamit euh, te patronat de la presse mhm. euh, ñu ngi ñu ngi bind benn plan d' pour sauver le secteur de la presse dégg nga plan d' urgence boobu dinañu permettre mhm. ñu mettre en place un fonds euh, un fonds spécial mm de, euh, de financement du secteur de la presse donc euh, ñu yaakaar ne euh, dinañu dimbali pour ñu xaw a secteur de la presse mm mais crise coronavirus bi dafa wone aussi Euh, yeneen jafe-jafe yi nga xam ne euh, secteur de la presse par exemple euh, suñu télévision yi mhm. suñu rajo yi elles ne sont pas suffisamment équipées dégg pour ñu def par exemple ay direct dans le cadre du télétravail mhm. pour Euh, ñu am équipement yi nga xam ne dañ koy jox journaliste yi dégg nga euh, équipement pour bu ñu nekkee seen kër sax ñu mën a liggéey ak yooyu et cetera et euh, loolu ay ay jafe-jafe la nga xam ne dañ ko war a régler si biir coronavirus bi tout comme par exemple la presse écrite presse traditionnelle bu nga xam ne ci këyit la ñuy joxe information bi naka lay defee sa mutation en digital dégg donc yooyu yëpp aussi nekk euh, ay problème yoo xam ne euh, yu bees la mhm. euh, en fait peut-être pas yu bees mais ay yoo xam ne te coronavirus bi da koo gën a fësal da koo gën a fësal mhm. Mhm. monsieur Mamadou Ibra Kane ñu lay jaajëfal bu baax a baax maa ngi jaajëfal Elisabeth may fàttali ne moom moo jiite conseil des éditeurs et diffuseurs de la presse CEDEPS merci beaucoup